saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa arène bi ñuy waaj ubbi te ku ci nekk di ci sànni xalaatam mbooleem luy activité sportive fas yéene nañ ko ubbi ci biir réew mi ñu fowi waaye la ëlëm ñëpp jaaxal ñëpp yéem ñëpp mooy làmb ji ndax danañ ko ubbeem déet ndax mbër yi danañ bëri ji waaw déet en lépp luy sport ci réew mi bu ñu ko ubbee huis clos képp la ñuy defi làmb ndax huis clos jig na koom déet loolee ponkal yi xëy nañ àddu ca a araftu day ànd ak huis clos suba huis clos ci làmb fan ngeen ko mës dégg ba koy xalaat bu dee football bi nag ñoo xam nañu ko def ndax loolee jig na leen ku wax football wax fédération te ku wax fédération wax état waaye làmb ji nga xam ne ay promoteur privé ñoo fi nekk di dugal seen xaalis ku leen wax waxi huis clos da nga leen bëgg jooyloo beneen bi mooy mbiri PPV ñëpp a xam ne maîtriser gunu ko bu doon maîtriser nañ ko sax tey ji waxatuñu ko rax ca sonn ne ko ñun dañoo tëggul tey tëgguñu ëllëg bu ñu bëggee ñu tëgg làmb ji doxal nañu bàyyi public bi ñëw bu ñu ñëwee ñu saafanteeg les mesures barrières takk ci masque yi laal ci sel yi bu boobaa danañ respecté mesures barrières yi danañ organiser suñuy combat rax ca doole moom Fallou Ndiaye ne ñun ci wëri solution la nekk wante nañu wër bi gën ñun promoteurs yi bu ñu amee solution bi gën dañ ciy ànd bu ñu jàllee ca El Hadj may agent Tafatine la mu defal ko bagage ba noppi nag la a xoolaat leneen la nekk suñu kanam waaye bile combat moom na Boy Niang 2 ak i mbokkam xam ne combat a jëli ndam ci digganteem ak am mooy ku xiif guy ne am na ay faa yu dafa xëy génn tontu tontu ba mooy guy gi bu ma ko jàppee mu xam ne jàpp naa ko bu ma ko téyee danaa ko def lu metti te bile combat dama bëgg ñépp xam ne dàquma ci kaaw dama ne combat bi boo moytuwul guy gi dama koy dóor mu daanu rax ca doole ne bile combat ku ciy séentu xeex danga ko gis bu ma ko jàppee danaa ko làpp-làpp yu metti gannaaw bi covid bi duggee ba installé ministre des dafa fas yéene woon a jàppale promoteurs yi noonee mu ko déggee woon noonee la ko defee yëkkati 27 jox leen ko waaye yi les nanu ko séddalee neexut yenn promoteurs yi bu dee promoteur bii ñuy wax jaksi la mu xamle mooy nin ko séddalee neexu ko jaarut yoon bi la séddaleeb xaalis bi daal injustice képp la ci gis moom la mu noonu la yeneen i promoteur amee ay date danoo waroon a jël millions yi séddale ko promoteurs yi même bu dee ku nekk day am ñaar sax baax na waaye jël ko yemale ko ci ñeent juróomi promoteur loolu du dëgg du yoon xaw ma ban waaye bile séddale moom jaarut yoon baaxul jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci yéene kaay bi ñu leen jox dig daje ëllëg incha allah